béréb bi nga xam ne fi la ñu nekk dafa bokk ci benn bànqaas ci bànqaasu fédération Ahlou Café Touba ndax fédération Ahlou Café tubaa dafa nekk benn procès de société boo xam ne euh, li ci jiitu mooy liggéeyal Serigne Touba waaye bu ñu nee liggéeyal Serigne Touba day laal mbooleem umma bi. benn entreprise la boo xam ne fédération bi daf ko créer ci xalaatu soxna si ak ñu koy jàppale euh, xam ngeen ne jamono ji ñu toll nii li nga xam ne moo xew ci àddina bi mooy tawat bi ñuy wax euh, coronavirus. Eh, te fii ci Touba tam xam nañ ne am na fi moo tax ñun ci xeex bi eh, dañ ciy doxe ay fànn yu bare bëri bokk na ci eh, li nga xam ne moom la ministre de la santé digle muy sénégalais bu ne am masque di ko takk moo tax suñu entreprise bi tàmbali di ñaw ay masque yaakaar naa am na ñoo xam ne ñu ngi ci danañ wax ci loolu tailleur yaa ngi fi suñu secrétaire bi nga xam ne mooy seere entreprise bi mu ngi fi soxna saa ngi nii toog ñoom kenn ku ne am na domaine boo xam ne yor na ko ñun dañuy wax rek ci cadre fédération bi wane ne fédération ahlu café Touba lépp la am am nañ ñoo xam ne ñoo ciy liggéey ñu sëñ daam café eh, ginnaaw liñ koy joxe addi sëñ Tuubaa tam eh, café gi dañ koy joxe di ko jaay ku ko soxla am nañ ko am nañ tam eh, ñoo xam ne ci wàllu togg tey docteur yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Tuubaa ñu ñoo leen di toggal waaye itam ñu ngi toggal dong yi di leen ko yow yot kon ci wàllu restauration dañ ciy yëngu ak lépp loo xamante ni bii maanaam entreprise war na ko def bu ñu ne entreprise nag day boole liggéey yëpp domaine yëpp am na fi amul dara loo xam ne manqué na fii loo soxla rek boo fi ñëwee incha allahu taala dañ la ko mën a te ña koy def danañ ca xereñ am ca xam-xam ndax kenn ku nekk domaine ba nga xam ne moom la ñu la séddee nga féetewoo ko ci liggéey bi maîtriser nga ko xam nga ko ba lu ñu la ci sant ko mën a def te bi ngeen teewee fii gis ngeen tailleur yi nga xam ne ñooy ñaw nga xam ne ci ay diir bu gàtt ñaw nañ lu mat juróomi junni masque te dañuy continuer liggéey bi te loolu suñ paree incha allah dañ koy distribuer ci population bi ngeen jàpp ci liggéey bi loolu itam yaakaar na def nañ ci euh, bi coronavirus bi tàmbalee euh, defar nañ ci wàllu cere euh, fanweeri bërigo ak juróom mooy maanaam euh, ñetti tonnes ak xaaj yoo xam ne dañ ko séddale ci sëriñ daara yi yóbbu nañ ko ci téeméeri sëriñ daara ak ñeent waaye itam ñu ngi togg ay reer reer yoo xam ne itam dañ ko méngale ak jamono parce que itam bu ñu nee dañuy xeex feebar bi war nañoo fexe ba lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu set ñu respecté ko moo tax ñuy togg ginnaaw bi ñu amee autorisation dañ leen di limité bañ yem waaye bu ñu toggee ba pare itam ñi koy séddale dañ leen di jël ñu yem ñooñu itam danañ raxas seen loxo ak saabu ba mu set danañ laal ci zel bi waaye itam danañ takk masque yi ña koy distribuer tam loola danañ ko def euh, togg yooyu tam duñ ko tàmbalee ak léegi ay plat lañ ko def yoo xam ne plat bu ne benn dong mën na cee lekk ba suur dañuy togg ñaari façon togg léeg-léeg ñu togg cere ak macaroni wala ñu togg cere ak petit pois waaye daal chaque jour danañ defar 3 euh, 300 paquets yoo xam ne danañ ko yóbbu ci daara yi léegi sax boo leen nañ ci police yi nga xam ne dañuy monter euh, ñu leen di fekk foofa di leen jox ñoom reer waaye joxaale leen café jox leen tam ndox ndax ñoom fu ñu jënd ndox rek dañuy am jafe bi wax dëgg yàlla loolu moom ñu ngi ciy def liggéey boo xam ne dañu ko tàmbalee ak léegi yàgg na te dañ koy continuer ci koor gi koor gi ñu ngi lancé benn opération boo xam ne bëgg nañ fukki junniy mburu yoo xam ne euh, chaque jour 300 pain la ñuy soxla yoo xam ne danañ ci mën a jox juróom-benn téeméeri dongo togg li ciy dem boole ko café ak suukar ak bisaab ak li war a àndal lépp loolu lépp dañ koy embalé ba mucc ayib nga xam ne dong daara bu ñu dem par dong la ñuy jox ñun duñ ñëw rek jox leen ñu groupe boo lekk waaye dañuy jox dong par dong daara ji toll rek ñu xool li ñu yor nu mu toll ñu jox daara jooju su ñu jàll su ñu ñu ñu mottali léeg ñu def juróom-ñaari daara léeg-léeg ñu def juróom-benni daara ndax daara yi boo mat ñaari téeméeri dongo su ko defee tam bu fekkee ñetti téeméeri paquet nga yor da ngay joxe foofu ñaar téeméer yi desee téeméer bi téeméer bi ci des nga dem boo demee ci beneen daara mën nga faa fekk 50 mën ngaa fekk fii 20 mën ngaa fekk fii nangam sans départ ci daara bu ne ak la nga fekk loolu tam ñu ngi def liggéey bu am solo boo xam ne def nañ ko fukki fan ak juróom waaye di santaat bu baax a baax suñu jàmbaar ji soxna maam Issa Mbacke Euhlou Café bi nga xamante ne si moom moo xalaat li rafet lii muy entreprise bi nga xamante ne si fi lañ nekk man maay président des terres comme ni ñuy liggéeyee bu ñu xëysee comme d'abord damay tàmbale si bu ñu xëysee comme nombre yi nga xamante ne si maanam ñoo fi nekk mën naa ni ñu ngi am sept machine sept machine bu ci nekk benn terre bu ne moo ci toog remplaçant deux lañ ci am bu ñu xëysee d'abord lu ñuy njëkk a def mooy ci couloir bi dañ fay simi suñuy dàll bu ñu see kooku am na ku koy saytu moom mu ngi ci bunt bi mooy saytu ñuy simbi dàll yi balaa ñu dugg ci place bi am na ñaari pot yu ñu teg yoo xam ne dañ ciy raxasu bu ñu raxasoo ba pare nag dugg ci biir jël antisel bi nga xamante ne ci moom moo nekk nii laal ko ci mouchoir agité yi nettoyé machine yi nettoyé ciseaux yi daay fomp taabul bi nga xamante ne ci la tissu bi di daw d'abord soo koy tàmbalee ñaw tissu bu ñuy am nag ñu ngi koy jëlee fi nga xamante ne si mooy suñuy conteneurs yi nga xamante ne si ñooy ñëw dañuy dem xool tissu yi sell loolu am na ñu yor liggéey boobu nga xamante ne si suñu jëwriñ Omar moom mooy dem saytu tissu bi bu nooy bi ak doublure bi ak renfort bi nga xamante ne si moom la ñu war a inspiré parce que bakkan dafa nekk loo xamante daa war a am lu muy inspiré xool ba xam set na wala setul su setee su valable bu nooyee ñu jënd ko indi ko jox ko ki nga xamante ne si moo yor si taabul bi mooy dagg moom dagg rek lay féetewoo tissu yooyu la ñuy utiliser pour le moment. fii ñu ngi fi am huit neuf tailleurs parce que sat ñuy toog ñaari remplaçant lañ loolu lañ fi am. comme que entreprise la te itam dañuy soog a door mën nañu dem ba nga xamante ne si maanaam dinañ gagné yeneen it parce que lii dañ ñu ko lancé rek jox ñu ko pour ñu xool nga xamante ne si maanaam dañ siy def suñu kéetalaay kàttan. ba nga xamante ne si ñu demee ba dinañ mën a gañe yeneen yi nga xamante ne si day nekk suñ kanam ndax lii feebar bi moo ko waral moo ko indi ndax itam suñu spécialité nekk na ñaw tissu ñaw ay blouse ñaw ay yére mais comme que Covid 19 dafa dugg si si Sénégal am doole ñu dem ba remarqué ni masque yi chinois yi mi ngi fiy ñëw te it matatul aussi Sénégal dafa war a am téer yoo xamante ne si war nañoo war a mën a ñëw masque yi ñu seet les professionnels ci place yi. éduquer leen xool tester leen ba ñu mën a ñëw masque ñu soog leen toogloo ci machine yi ñu koy liggéey léegi nag senegal di liggéeyal boppam masque yi di ko distribuer comme gratuitement. kon ni ko jëwriñ ji njëkk a wax waxee rek fa laay commencé samay kàddu lii dafa bokk ci benn démembrement ba nga xam ni fédération Euhlou Café Touba da koo samp muy entreprise ndax kat bu dee borom xam-xam yi li ñu wax dañ ni développement dafa bokk ci. ab jeunesse bu mbooloo mànkoo di liggéey ngir euh, am réewum jëm kanam te boo xoolee sa fédération Euhlou Café li boole ci mbooloo rawatina jeunesse bi kenn mënu koo xayma ba tax na bañ toogee def suñuy gëstu def suñu analyse ñu xool ni fédération bi war naa génne bànqaas bu nekk ndax kat fii spécialité bu nekk mi ngi fi boo demee ci wàllum tailleur bi am na fa ay ay spécialité ay ay ay tailleur yi nga xam ni xarañ nañ ci li ñuy def dans le domaine professionnel bu ma mënee wax boo demee ci wàllum production café am na ñoo xam tamit xam nañ kafe gi boo demee ci yenn fànn maanaam wàllum restauration comme ni ko jëriñ ji ko wax waxee tamit am nañ fa ñi nga xam ne dañoo spécialisé ci domaine boobu ba tax na ba mbir mi xewee ñu bañ a toog croiser suñu bras xam ni kat crise bi laal na fu ne ba tax na ñu war a confectionner ay masques yu bëri ci nombre yu bëree bëree bëri bëri ba liggéey bi moo commencé ni ko gisee comme ni nga ko jëlee au début donc kon appel bi may lancé mooy lii ab entreprise la entreprise ba nga xam ni tey mu ngi yëngu ci masque yi waaye suba mën nañoo gagné yeneen masque lépp lu jëm ci wàllum ñaw muy blouson muy blouse école yi muy ay yére moderne ay yére traditionnel lépp loo soxla ci wàllum ñaw rek entreprise bi taxaw na pour répondre pour satisfaire clients yi nga xam ni ñoo ñëw signé ak ñoom partenariat dañoo am personnel ya nga xam ne dañoo xarañ lool ci li ñuy def ndax ba ñuy sélectionné dañuy sélectionné ñi nga xam ne ñoo gën a aay ci domaine bi ndax sélection bi du caagi ne da génn ci biti rek xool benn téer xool benn téer ndax lii dañoo am projet ba nga xam ne ça vise l' avenir bu ne projet ba nga xam ne ça vise l' est une formation d' abord parce que d'ici ci fan yi ñëpp buñ ñu génnee ci li nga xam ne mooy lii day doon benn école ba nga xam ne day am ay salles yi nga xam ne dañ fay jàngal képp ka nga xam ni engagé wu nga te téer nekk sa bëgg a doon métier ñu former la jàngal la duñ ma ne professionnel nag parce que si bu ma waxee entreprise rek jóge nañ ci lépp la nga xam ni bokkut ak professionnel parce que fii professionnalisme la ba tax ne boo ñu duggee normes yi nga xam ni moom la ministère de la santé teg pour ñu defar ko masque yi defe naa normes yooyu yëpp gis nañ ko ba tax ne amul kenn kuy ñaw te laaloo li nga xam ne mooy gel bi wala nettoyoo machine bi ba ci man mii nga xam ni maa nekk ci bureau bi sax sama machine bala ma koo laal damay utiliser li nga xam ne mooy gel bi désinfecté yi nga xam ne machine bi parce que virus bi dafa sew te ku nekk gis nañ ni muy transmis ni ni ni muy wàllaatee donc muy man muy keneen muy personnel bi nga xam ni day am jaxasoo ak euh, ci biir entreprise bi norme yooyu dañ la koy exiger nga respecté ko norme yi ku ko exiger wu si ñun parce que entreprise boo gis am na réglement intérieur am na réglement bi nga xam ne avant ñuy commencer liggéey bi teg nañ ko jàllale nañ ko ba képp kuy liggéey xam nga lan la entreprise bi bañ ak lan la dul bañ képp ka nga xam ni respecté woo norme yooyu ay sanction dina dal sa kaw ba ba ci même sax ñu jëlee la fi ut keneen ka nga xam ni dina mën a saytu li nga xam ni mooy liggéey bi donc masque yi comme ni nga ko waxee day am renfort day am doublure day am tissu bi gel bi tamit pour production bi day dépendre ci demande bi parce que ñun chaque jour rek ça dépend parce que loo ñu jox ci quantité am na benn organisation boo xam ne moom la ñu organiser woo lépp loo soxla ci quantité rek moom la ñu produire parce que am nañ ay logiciens ya nga xam ne dañoo spécialiste ci domaine boobu du ñuy téyeer du ñuy maanaam ñi nga xam ne ñooy dagg waaye spécial ñoom loolu rek la ñuy saytu tey boo fi indi woon 1000 masques par exemple ci mandarga dinañ la xoolal journée bi ñaata lañ mën a def wala bu d'ici une semaine ndax mille masques yooyu noonu dinañ ko def ba respecté ko. waaw loolu daal dañoo xalaat ni comme waa Ahlu Café moom ci activité lañ leen xamee dem ci cant yi di séddale café màggal yi comme loolu amut. ñu amoon xalaat ne liñ daan def noonu war nañ koo jëlaat toggal ko di ko yóbbul sëriñ daara yi comme couvre-feu bi dongo yi di ñu yalwaane loolu ci lañ amoon xalaat boobu ba di ko def daara ji koñ buñ tër rek bu ñu dem beneen kër ci daara yi jox leen ñu reer ci anam gu sell li jiite loolu tamit defaroon nañ ay cere ay ay deux cere defar nañ ko kër sëriñ buñ laaloo weer ko ba mu boole ko meew suñ daara bu ne ñu dem wàcceel benn saak bi loolu mate nag lañ commencé waat reer yi nag di ko def bis bi sax ñu jël juróomi daara wala juróom-benn daara jox leen ñu daal. booy liggéeyal sëñ Tuubaa rek sëñ Tuubaa moo lay wax jaaral fii jaaral fii ndax dem bi ma jàkkaarloog télé bi gis a takkaat sama laxasaay na kon kon naa ngi yoon wi comme damaa nekkoon ci mbir ci ab tool di ci liggéey borom tool ba ñëw joxewaat ndigal ma gën a takkaat sama laxasaay lañ doon def daal ñëw gën koo gën koo ful bu gën a bari waaw incha allah fas nañ ko yéene ndax comme ñun xamee woon nañu ci joxe ay ndogal ci kër sëñ Tuubaa gi ci daaru Manaan ak yokk jumaa ji yokk jumaa ji sook yokk bi dend ak kër sëñ Saliou ak kër sëñ Tuubaa gi ci jumaa ji résidence xame woon nañ ci ñu joxe ay ndogu comme boo dajaloo bi amut ren ñu ne nañ continuer rek ki ni ñuy séddale ci sëñ daara sëñ bi joxe waat na ndigal ñuy waat ndogu yooyu di ko def teg ko ci ay oto di ko waat ci ndongo daar yi ak ñu néew ji doole ñu koy yellool ñu koy ndogoo noonu daal réunion nañ ci ba pare ba tënk ci suñuy kàddu xam naa daal lépp lépp ndog bu ñu daan def dinañ ko def waaw dinañ ko def ci anam gu sell boole ko du am mburu wi du am ay nit jël personnel bu yam ñu di ko defar tel ko dafa tel see jublu teg ko ci oto yi fépp fu war dara war a dem rek ñu yóbbu ko fa balaa jant bee sañoo ñeeku waat ñëw toog loolu daal lañ lañ xalaat. waaw bëgg nañ ko ci jàppale ndax xam nga bu ñu seet ngay def metti na waaye nag buñ tubaab moom boo ko defal moo lay dalay téyel coono bi bàyyi la bànneex la wax dëgg yàlla am na ñu ciy jàpp nga xam dañoo bëgg lu baax ñu ngi ci jàpp.

international lancé war nañ appel bi sëñ bi joxee ndigal li ni kenn ku nekk fa nga ne daara joo dina danga ko jàppale lépp loo mën danga ko yóbbu ci daara ji ndax lu baax le woon waaye teewul nag dañ ciy amaat ndigal lu bees